alaaji bu demul màkk mi ngi nii toog Modou Fall waaw boobu moom dégguma ko xam naa mun maa ko ci ñambaas rek la ñaanal nga dem ci dëkk bu sell ba ziyaara ji taaxa rasul ak képp ku ci euh, ku ko bëgg aywa euh, dem ak dikk euh, la ñuy waxtaanee tey nag dafa mel ni taw bi comme li tubaab naan le malheur des uns mu nekk nag loo xam te lu la lu lu raar la sax lu mën nañ jàpp ni reportage bu bu bu xaw a mm-hmm. ndaxte taw moo waral taataa gu bëri. ba mm. sax mujj dog li nga xam te ni mooy wàll wi nit ñi di jaar. Mm. ba tax daal ñenn ñi euh, daal di ci li tubaab di wax frotter les mains. Mm-hmm. Euh, gis ci seen bopp bu baax a baax. Mm-hmm. Euh, mbir mi ma nga xewee ca diggante caaro yi jàmm gën si Cap Mbaaw foofee boromi saret ñoom fi mu ne nii la fa seen mbir baax ndax nee ñu ñooy jàllale askan wi ci ndox mi léeg-léeg sax bëccëg gi bu neexee dina toll ci fukki junni fukki junni lañu wax ne moom am bii dañ ci ànd ak Mamadou Fall ak Cheikh Fayaw. naxaru ñenn ñi di def mbette ci nit ñi loole nag kon gannaaw bu mu tawee ba pare jaar fii ci post caaro yi doon jafe-jafe di dëgg li mel fii nag saret yi ñoom seen business dox na lool ndaxte yóbbu ay nit te fii ñuy jéggi ndox mi dafa indi koom ci ñoom. suñu liggéey suñu liggéey neex na dañuy yab nit ñi chaque jour ni ku nekk téeméer dem post caaro yi bu ñu sañoon affaire du jeex. waaw. journée bi journée bi dañuy xëy am nañuy liggéey cinquante mille si journée bi bu dul bu dul nawet du ñu liggéey cinquante mille moo tax ma la bu ma wiñ sañoon du jeex mais parce que nit ñi tamit sonn nañu dañuy dem ba ñun sax dañ leen di yërëm di ko def trois cent trois cent di leen jàppale du yóbbu ñëpp bilaay neex na suñu torop moom am nañ si xaalis bu baax. waaw mais mais loolu seereer seereer rek ko mën parce que loolu mënër mënu ko fas fu mën a jaar oto mën a faa jaar yaa loolu looloo waral ñuy transporter Poste Thiaroye téeméer Diamaguène 300 loolu lañ doon transporter yaa ngi dégg parce que ndox mi métti dafa métti kii mala la te da koy yëg moom it. ni foofu noonu charrette rek moo fa mën a jaar ndax machine mënu faa jaar ndax ndox mi bëri na bépp bëriwaay boo xam ne nii da ngay toog di gis oto yoo xam ne ni dañuy lii di fay seen xaalis pour nit ñi génnee leen ndox bi waaw ndax nga mënu machine yi mënu loolu mënuñu ko. taw yi ñu nemee ko tax dem ak dikk bi tàggatémbe rawatina ñenn ñi nga xam te ni seeni at dafa avancé lool ak ñi nga xam te ni ay soutien de famille lañ te mënuñoo toog kër ga faaw ñu génn wuti dépense. nañ de ndax ndox mi bëri na trop waaw ndax ngay gisee moom jëmu di ut luñ xëy di ut luñ yóbbu kër ga ngir jox njaboot gi. na soomu mag ñi dañuy gis ñoo xam daanu si ndox mi sax xam nga gis ñoo xam ne seen oto yi dañuy yàq si ndox mi xam nga gis nañ ko loolu lépp gis nañ ko fi. xale yi sax demuñu dëkk yi mais ñi nga xam ne dañuy xëy di dem di uti dépense di ñëw jox seen njaboot yi xam nga ñoo ëpp seen ndox mi yaa xëy toog ñu xëyee toog di sotti seen kër yi day métti. gannaaw nag dox gi business bi dox ci jafe-jafe yi nga xam te ne nit am nañ ko ci jéggi yenn ci mbedd yi charretier yi ngir sàkku kon ci autorité yi ne nañu amal li nga xam te ni moo di système canalisation yu mucc ayib ngir kon éviter rek mbënd ci jamono yi ñu jëm. waaw nit ñi jaaxaloon nañ trop moo tax ñu yéeg si sereet sereet moom day fees aller retour da ngay day fees dell waaw ñu lan lañ bëgg Macky Sall jàppale ñun sonn nañ torop non waa jàllale dafa mel ni dañoo laxas jaan ci prix yi Chérif quand même suñu sañoon nee nañ euh, mbënd mi du jeex c' est c' est compliqué ah ci askan wi. waaw c' est très compliqué man Modou Fall mi sax xawoon naa ci kii man bi dem bi mu ne ma booy na fukki junni la ñu am par jour. bi da tiitoon Mour nee na am na koo xam ne sax wax na lu ëpp loolu mais c'est très normal bu fekkee ku ne 500 la. xam nga chef bi 10 personnes la yem. voilà ko vérifié voyage bu ne téeméer oui oui après bon c' est vrai que comme ni ngeen nga waxee. Euh, yéeme na trop kon parce que situation bi ni mu demee surtout ñim laal seen niveau taxu de revenu taxu ko amee noonu bon boo leen tegalee yi coono je pense que c'est terrible quoi donc euh, Modou Fall moo taxoon ñu bëgg a wax ni sax euh, est-ce que lii ba kañ. ba kañ xëy na boo dee xool démb nag yëf yi. mu ngi tàmbali euh, di ndox mi ngi euh, ñu ngi commencé am yoon euh, ci route nationale bi ndaxte fii xale yi fi ñu doon transporter mooy ndox mi nga xam te ni dafa daggoon yoon bi ci diggante poste Thiaroye yi mm-hmm. ba yegg jàmm gën ci kaw nga xam te ni oto yi mënatuñu traversé yaa ngi dégg xale bi mu ngi wax ne la am na oto yoo xam te ni sax dañuy paan ci biir ndox mi dañ leen di xëcc ñu fay xëcc leen ñu fay xëy na nag du charrette bay xëcc mais ñoom ñooy xëcc nga gis ñoo xam te ni mënuñu toog faaw ñu wuti li nga xam te ni moo di lu dundale seen i njaboot te faw ñu génn ñi faaw ñu dem liggéey yi mm-hmm. nga gis xëy na ci xàll wi ni mu yaatoo faw nga jël charrette ngir mën a jéggi ñoom nag ci la ñu inspiré woo créé li nga xam te mooy seen euh, charrette yooyu di transporter nit ñi mm-hmm. ci diggante poste caaro yi jàmm gën ba Sicap Mbao ndaxte am na yoo xam te ni oto mënu fa yegg te doo ko mën a xuus faaw nga jël charrette ci noonu lañ ko ñoom fixé seen i prix dégg nga ko mën mm-hmm. la poste caaro yi pour ñu yóbbu la fa da ngay fay téeméer Sicap Mbao 300 euh, def nag recette bi nga dégg nii distance bi guddul li mu wax. mais dafay naqari guddul mais dafay naqari cest à diir pour nga pour nga pour nga kon continuer dem Dakar faw nga jaar poste Thiaroye te bu fekkee da ngay jógee Sicap Mbao euh, bëgg a dem poste yi faaw nga jaar ci yoon boo xam te ni parce que bu fekkee ni ndox mi demoon na ba jël station bi nga xam te ni sax moom la ñuy defar ci yoonu jàmm gën bi nekk ci hauteur euh, doo ñeme xuus ndox mi ngir mën a dox dem tey na xale yi ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy jéngu yoon bi dégg nga ko mag ñi am na ci ñoo xam sax dañuy daanu ci biir ndox mi euh, faaw nga jël charette téeméer bi dafay doon loo xam te ni lu obligatoire la. loo mun loo mënta bañ a génnee. ngir mën a wéyal say say say activité boo ñoom nag ñu ñu def ñu mel ba xëy na wax nga ko charette bu nekk mën na jël lu fukki nit. Mm-hmm. boo ko calculer ci recette bi nga xam te ni ci diirub ñetti fan la durée. dañuy am personne lay def 5 ci boor bi 5 ci boor bële donc bu ku nekk fayee téeméer day nag xëy na mën nañ teg ñaar ci digg bi. Mm-hmm. ndax euh, voilà ngir jéem a wut koom ko inspiré nga dégg nag. am li nga xam te ni euh, fukki junni la am na sax keneen koo xam te ni ci biir reportage bi xëy na maa ngi koy wax euh, teguma ko peut dama jàpp ni dafa xaw a jéggi day parce que nee na am na am na mm-hmm. euh, ci benn journée donc fukki junni ak juróom. ci mm-hmm. transport ay nit diggante Diamaguène Sicap Mbao mm-hmm. ak Poste Thiaroye war na rek ni. xëy na naxar naxar yoon bi ak ndox mi ni mu koy jëlee. jéggi na dayoo foofu ci diggante Poste Thiaroye mais situation quand même bu compliqué la ndax ku daan fay Chérif diggante boobu peut-être car rapide juróom wala ñaar fukk dërëm ak fukki dërëm buñ la ci fayeekoo téeméer bu fekkee da ngay taaba taaba téeméer boobu amaana am na fu ma xajoon ci kër gi peut-être njëgu mburu la woon wala lenn looy goûté boo yu bàll xale yi donc euh, je pense que ñu ñu ñu jàppalante ci jamono ji c'est très surtout que xale yi ngay def sax ci quartier bu leen dëkk je pense que quand même ci quartier bu leen loolu nag ah, mm. ça pose problème mu solidarité surtout réew mi mm. Sénégal parce que du rek ci dawalkat saani réew mais moom boo demee ci taximan ni c'est la mm-hmm. même chose bu ah taw même ah di yokk que bu fekkante ni borom bi dafa teg ay suñ nit nattu yenn saa yi solidarité cee baax maanaam mën nga ci bañ a gaañu mhm. mais aussi bu leen gaañ loolu lépp voilà de couper la poire en deux mais faut pas profiter aussi de la souffrance des gens mais réew mi nag li nemmeeku mooy mhm. su problème amee wala nit ñëpp soxla surtout ci côté transport bi mhm. gars yi dañu commencé di yokk transport bi nga gis ni nit ñi même buy taw da gis nit ñi déjà pour ñu sonn des fois sax ci cag-cag yi di dem parce que mu amul moyen boo xam te pour jël taxi foo bëgg a dem fii ñoom taximan yi sax déglu ay loolu c'est pas bien je pense je pense que fi ñu toll nii surtout jamono joo xamante ni nit ñaa ngi dox mi sonn seen alal lépp dem ci mm. euh, soxla na leneen lu dul quand même ñu leen di voilà wàllu comportement man laay wàllu comportement ndaxte boo xoolee même événement bu jotee da gis nii mm. dañ koy def euh, seen genre traite euh, boo xoolee ci jamono yi dagg paas xewoon na fi mm. donc xëy na jël super mais ñun ñu ah, daan jël super ko wàllu dagg paas nga par exemple super bu daan jugee yëmbal jëm Pikine nga daan fay 100 francs mu mujj ko dagg day woote Tali Diallo. Mm-hmm. Euh, bu woote Tali Diallo wàccee leen après woote waat. woote waat bu buntu Pikine doo ko woote Pikine bële. Euh, bu ko euh, mooy li wax rek profité ci même surtout ci ci ci ci nawet yi. Mm-hmm. mais situation bi fii nii fu mun te yegg xëy na charrette rek moo fu mën a traversé. Mm-hmm. te loolu nag faw nga jéggi ngir mën a faaw nga jéggi poste yi ngir mën a am dem Dakar. xëy na ñëpp gars bu ñu xëyee dañuy seen i business c'est vrai euh, xale bi mu ngi naan ñun fii lañ dëkk ñun ak ñoom fii lañ dëkk ci suñu kër yi dafa taar mu ngi koy wax euh, ci ci ci ci bi ma koy jël ne mais foog ñu ñun tamit ñu créé loo xamante ni dinañ ci mën a dimbaliku mm-hmm. mën a dimbali itam suñuy wayjur xëy na nag metti na ndax mm-hmm. téeméer gi ñu laaj askan woo xamante ni ci ndox mi ngay jóge mm-hmm. euh, lu lu lu lu difficile la mais xëy na tamit comme ko diirul ñetti fan bon moom xëy na day xale tax parce bu ñu xale moo tax. xam nga nee na nee na bu dul nawet. xam bu ci jëlee woon un million it bu ñëwee da koy ci da koy fajee ay soxla ndax. tàng ndox mu dul problème am du rek. li li lu mu bëri bëri nëppal yaa rek. li li li réew ci reportage bi dafa ni waay. job bi kay ndox la saa yi ñun bu ñu sañoon du jeex. mais bon joobu ñetti sa euh, am fukki junni. Mm-hmm. nee na tey ma wàccaale fukki junni kon job bi. nekk fukki junni yooyu bu demee fekk waa kër gi cim ndox mënuñoo tëdd lu mu ci ëtt. sotti suuf ci ëtt ndox mi euh, euh, ñuy mastawaat encore une fois ñu nekk ci ndox mi suñu xel du jóg ci ñoom Chérif nag wax na ko banlieue bu Ndakaaru rawatina mais ci biir réew mi gis nañ ko fu ci mel ni Touba euh, fu ci mel ni Kaolack mm. ba Saint-Louis di ay gox yoo xam ne quand même euh, ce sont euh, elles sont toutes des villes touchées Kaffrine par les inondations et puis déclenché nañu plan Orsec bi mais quand on a vu une population très très en colère et ça on l'a compris mm. yaa ngi koy wax jëwriñ bi ñu dénk wàllu bi réew mi bi mu demee quand gis na une population très déterminée dañu sonn ci ndox bi gën a sonn. digal bi chaque fois aussi surtout modestie bi da cee baax humilité bi. surtout bu fekkante ni aussi. a doguma la on a quand même l'image euh, euh, suñu papa jooju di wax naan il faut prendre des mesures ça résume tout. <laughs> <laughs> waaw mooy la dëkk. Kaffrine la dëkk on a l'élément parce que mm. fii la jàlloon. waaw donc moom Kaffrine la dëkk pour montrer que ni léegi nit ñi kenn dafa bu njëkk la ay way politique fonctionnaire de état di ñëw ci nit di leen nax wala di leen dégg mais góor gi boo déglee le discours là mm. nit ñi aspect leen ci neex mooy li reetaan mais li mu wax ni dans le fond c'est très sérieux maanaam dem nañ ba comprendre le jeu oui on vient ici digee xawma lan vieux souvenir même langage voilà et puis mm. aussi bu tawee nawet jotee mooy li ñu wax même yi ñu fii tenir fii mm. boo xoolee sax en réalité jaru ko woon parce que mën nañoo jël les mêmes débats qu'on avait tenus sur les inondations il a dix ans boo ko tegaatee c'est actuel donc pour dire que chaque fois mooy comme li évolue mbënn munta ñàkk jafe-jafe munta ñàkk mais il faut que aussi li nga xamante ni moom lañ ciy def ci koppar wàllu transparence boobu aussi mu am ay suivi pour efficacité bi mën cee am parce que mënoo jël ay xaalis ñu ne lu toll sept cent et quelques milliards sept wax dugal nañ ko ci ba léegi jafe-jafe yi nit ñi di ko continuer que di dund affaire bu du rek xaalis dafa am loo xamante aussi même askan mi nga boole leen ci les municipalités nga boole leen ci muy loo xamante ñoom ñooy dund inondation yi leen ci xam même le ministre de l'intérieur laa xamu ko donc zone yi xamun ko fi gën a compliqué xamun ko mm. je pense que loolu aussi il faut ñu jàppale leen sapeur pompier dem ñi ngi def liggéey bu am solo ci wàllu pompage bi mm. su ko defee ànd pour Sénégal mën a yi sinon chaque fois aussi on va poser les mêmes problèmes di confronter c'est ça euh, image bi ñuy wax suñu papa jooju je pense que Kaffrine la woon ko Chérif waxoon et puis fii la jàlloon ci élément journal euh, bu télévision Futurs Médias mais li mu wax quand même euh, tout le monde se retrouve pratiquement ci ces ces paroles ils viennent faire des constats on va prendre des mesures bientôt les inondations ce sera un mauvais souvenir mm-hmm. et le souvenir revient on <laughs> très loin de nous en tout cas ñu ngi masawaat encore une fois ñi nekk ci ndox mi du ñu tàyyi di ko wax dafa metti euh, saa yoo yeewoo Chérif gis ngeen reportage bu am solo bi mu ci def boo ne sëpp say tànk ci ndox mi lay dugg ngay ah, xuus ànd ak ki gone euh, c'est compliqué di xuus di togg euh, di añ ci sa kawlal wala sax ngay toog di fande wala sax bërëbu gaan waaye boo suturloo du amati ci kër gi ndax ndox mi c'est très très très compliqué baa nga jël gone yi baa nga imaginer ak doom yi sax ci nga jël gone yi toxal mm-hmm. pour ñu mën a fanaan naan yi. ci yeneen kër voilà ci yeneen i kër. voilà ñu difficile mais bon man je pense ni ñu projet 1 bi ñu ne réussir nañ ko ni ñu def Dalifort ba réussir ko c'est-à-dire man ce modèle là war nañ ko mën a utiliser euh, que ce soit Kër Massar. Mm. wala même à Diamaguène Sicap Mbao euh, mm. ngir mën a kam drainer ndox yi ñu mën a dem parce que géej boo xoolee littoral bi soriwul ñoom ci ci dëkk yooyu. nga mm. pourquoi mënuñu nag créer des réseaux yi nga xam te ni ñoom ñooy euh, évacuer ndox mi ñu jëm géej cest à problème. C'est jërëjëf euh, Modou Fall et puis euh, mention spéciale à toutes ces ñoom ngeen a gis ci waañ wi ci ndox mi mm, euh, ñooy ëmb yëre yi ñooy togg añ bi ñooy toppatoo xale yi ñoom ñooy toog di trouver ay solution parce que jigéen ñi quand même ñoom ñooy yore liggéeyu kër gi même bu ñu nekkee sax ci bureau yi ñoom ñooy gérer kër yi kon ñu leen di massawaat encore une fois yéen soxna yi di leen souhaiter beaucoup de courage personne aussi à mobilité réduite ah, ñu am jafe-jafe déplacement mm-hmm. ci ndox mi soo a été aussi difficile très ñaamee laago ak euh, ñi euh, tawat tëral ak ñi nga xam ne ay mag lañu gis ngeen ko noonu jigéen ñi euh, ñoom ngay gis waaw waaw ñoom ñooy xuus noonu fexe taaba taaba togg dugg lijjanti yëpp génnaat tey itam di ko ñafee di leen masawaat encore une fois ci coono boobu di ñaan rek comme ni ko gars yi di waxee solution définitive bi moom ñu mu gaaw mais ñu ngi koy ñaan quand di leen ñaanal borom bi may leen xolu muñ ba ngeen eggali ak jàmm di am yaakaar rek ni quand même autorités yi euh, elles sont conscientes euh, danger bi ngeen di dund jafe-jafe bi ngeen di dund parce que ñëw euh, rek def constat dem yomb na mais trouver solution moo jafe te ci askan wi ngeen bokk aywa bu ñu jugee ci parenthèse boobu dem ak dikk la woon ñu suuxaale ci inondation yi li ci yéene kaay yi ak Chérif Dia